waaw jërëjëf ñu ngi am bégte loolu le fait que nous ñu ñëwaat fii avec euh, fii si du ministère l'Éducation nationale recevoir koo xam ne moom ministre et président jóge ba fait sur Bruxelles ñëw fii si Sénégal dem na rencontré le man rencontre ministre sport rencontre président de la République Nous avons fii si éducation nationale la ñëw man ak moom ñu signé fi convention bu am solo convention boobu nag mooy que mooy li wax le projet IFADEM il IFADAM nag benn initiative la boo xam francophonie ñoo koy def pour que ñu mën former maîtres yi à distance def nañ ci ay résultats yu baax ñoom ak OIF ak AIF ak éducation nationale formé nañu enseignants yu bëri parce que xam nga ne dañu am ay instituteurs adjoints waaye président de la République nee na nañu am ay instituteurs ñoom ñëpp nañu am CAP bëggatul dégg li ñuy wax ne yeneen ay enseignants adjoint, instituteurs adjoint. pour que instituteurs adjoint yooyu bañ a am nag laaj na ñu former leen fekk bàyyiwuñu classe yi de telle sorte que si nous de cette formation nous avons dinañu am seen CAP continuer di donc l'initiative est am Nous avons signé la ministère bi partenaires yi ñu convention bu bees convention bi ñu 2022 le le 2026 ceci à la fin, dinañu orienté bi formation bi directeur école parce que nous avons ne que formation bobo, de encore au niveau de la proximité en tout cas je félicite le ministre bi fi ministre présent, féliciter OIF AIF féliciter également le directeur de la formation et de la communication l'IGF acteurs yep les inspecteurs d'académie jóge c'est région parce qu'avant, avant région yi bari lool léegi ñu ngi koy le Sénégal donc convention pour Bessel, pour bu pour la donc en tout cas le ministère de l'éducation nationale compte le fait que nous